bi Ibrahima Niass. alhamdulilah. alhamdulilah. wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi. asalaamualeykum Baye Mokhtar TV. nuy naa ñëpp Mouhamadou Mansour Touré moo ñu nekkal ci wàllu liggéey bi ñi ngi woon ci ruhul adab bu Mawlana Cheikh Ibrahim ruhul adab muy téere bi nga xam ne tur wi rek moo lay xamal ne am na solo ruhul adab waaw maanaam nit ki du mën a yéwén te amul yar yar nag roxo gi lan mooy roxo gi yar bu fekkoon ne yar am teggiin jëmm la roxo gi kon téere bi moom moo lay may yar su fekkee ne jàng nga ko te jëfe ko démb euh, sëriñ bi Cheikh Ibrahim noon na wa laasimu laasima si tariqi bisa yu naalu rib fu bi taqiq na ngeen ko taqoo saxoo leen wirde wi ba leen ko cuut cuut bu teyee nga def gu subaa nga bàyyi bayti bii ñuy jàng si tey ak biñ jàngoon démb ñoo ànd waaw ñoom ñaar ñoo ànd ñoo xaw a niroo maanaam dafa woxoon démb ne nanga saxoo wirde wi ndax nga manaam a am bénéfice tey mu ne ku saxoo wut wirde wi doo am bénéfice tey loolu la wax kon xam nga ñoo ànd wala moo mooy saxoo leen démb loolu la waxoon ne fa lasta fi aqsi tariqi tarbahu illa isa kunta dawaaman tasluhu waaw fa lasta fi aqsi tariqi tarbahu ku jàpp ku jàpp tariqa bii doo am profit illa isa kunta ndere boo da nekk dawaman di ko saxoo waaw foog nga saxoo ko kon wallaasi moom ba mu waxoon démb moo del siwaat dafa mel ni daf ne moom baay daf ne jàpp leen tariqa bii ngeen saxoo ko ndax ngeen mën am bénéfice tey mu ne ku ko saxoowut doo am bénéfice lii rek la fa lasta fi aqsi tariqi waaw déet aji jàpp tariqa bi tarbaxoo di am profit mooy bénéfice illa isa kunta ndere boo dafa nekk moom yow mi ko jàpp dawaa man di saxoo tariqa bi danga koo saxoo waaw soo ko defee tas lahu di nga mooy di nga am di nga bëgg rek waaw wala isa kunta ndere boo dafa nekk moom mi jàpp tariqa bi dégg nga tas di xéwénal dawaaman ci lu sax mooy danga koy saxoo di ko xéwénal moom tariqa bi mooy di def liñ la sant bi bàyyi liñ la tere di ko wirde suba di ko wirde ngoon di wasifa di hadara juma nga saxoo ci loolu kon gis nga bayitu tey bi ak abi bayitu démb bi benn lañ bale dafa wax ne defal ndax nga jot ci profit bi bi mu ne boo defut li ma la wax doo jot ci profit bi fa lasta fi aqsi tariq tarbaw waaw déet jàpp tariqa bii di am profit illa ci sarta illa isa kunta dawaaman taslaw foog mu saxoo tariqa bi wala nga ne foog mu saxoo yéwénal def ndigal yi bàyyi sax ci door a mën a egg ci meññet mi xam nga tey baykat bi euh, nga ne ko demal ca àll ba nga ut tool bu baax nga ruj ko nga ji ko waaw ta nga sax ci tool yi nag waaw dal dem suba ngoon di bay di génne ñax mi di wattu ndax nga mën a am ngóobeef loolu moo doon bayiti démb bi bayiti tey bi mu ne ku ci ji sa gerte gi wala nga ji sa suna si te te te saxooxula di ko yéwénal lem di ko seet di ko defer di génne ñax mee ko toppatoo doo am profit mooy doo góob kon ñaari bayit yi ñoo kon li bàyyi santaane ci ñaari ab bayti yi biñ jàng démb ak biñ jàng tey mooy bu kenn ci ñun jàpp ne tariqa bi mën nga koo jàpp bu neexee nga wirde tey bu subaa nga bàyyi pour jàpp itam ne tariqa bi mën naa koo jàpp di wirde di seetaan télé di wirde di dugg ci YouTube bi di wirde di dugg Facebook déedéet waaw su fekkee da nga bëgg a sax saxoo yéwénal bi wala nga bëgg a mooy nga bëgg jot profit fayal télé bi euh, fayal mobile bi wala nga teg ko fële su ko defee nga fas yéene di ko def suba ngoon di tudd sa borom te yàlla tax te jàpp ne yàlla ngi toogaaleeg yow yaa ngi wirde ci zahir wirde bi noonu lañ ko bëggee dana ko continuer di la wax teggiin yi nga xam ne moom lañ soxla incha allah ci kanam waaye lu mën a xew mooy jàpp tëx bàyyi mooy tax nga mën a egg ci ngóobam bi te loolu misaalal naa la ko ci baykat bi su fekkee dafa tàmbali ruuj te jiwut wala mujji bayut demut ci tool yi yoonam nekkut ci mooy defut tëqu defut saxoo ak tool yi foogu ma ne dana mën a góob kon nag bayitu dem bi mooy dem leen ngeen ji na ngeen na bay wattu leen ba kera ngeen di mën a am ngóobeef bayitu tey bi li mu wax mooy ku ci nangu la dem ca tool ya nangu laa bay doo am góobeef loolu rek la kon tariqa Seexu Tijaan baa ngoog ku jàpp bul bàyyeeti ku jàpp bul bàyyeeti ndax ku bàyyi tariqa Seexu Tijaan sax man xaw ma looy jàpp tudd yàlla suba ngoon jéggalu yàlla julli ci yonent bi lii ku ko bàyyi moom foo jëm xam nga léegi la day waxtaan ñaan la ku jàpp tariqa Tijaan boo ko bàyyee da ngay xal ko léeg-léeg gars yi ñoom liñ teg alko mooy da ngay eh, simmi sa tuba ji def taati neen wala nga nekk ci xàll bi di wax waxi dof ñu naan diw dafa dof ndax dafa bàyyi tariqa bi naa bañ a doon halku moy ku jël yoonu xam yalla yoonu tuddu yalla yalla di togalé ak yow yoonu jéggulu yalla yoonu jundi julli jundi yalla yàlla ku ko jël bam yag nga bàyyi ko kay halku nga do ka jertu ñi xaar nga dof ak nga ñak ak da halku nga ba paré rek halku nga ndax yoon wo nga jëlon pour nga mëna egg ci yalla xam sa borom légui bàyyi nga kon kay halku ñew na to xam sa borom da ko xamul sa borom halku nga ndax ci bi na la jangal na la ko xamul yalla sa dund bi day sanku kon nag loolu mooy bayti tey bi euh, Baye Muxtar TV yal na yàlla dimbale ñëpp ñiy jàppale man soor ci lile ba njàngale mi dugg ci xol yi dem ci roxo yi jëriñ ñu njaboot gépp jëriñoo ko jëri ngeen jëf asalaamualeykum لئن عزني لقيا النبي ووصاله فقد دام لي تذكاره وخياله وإن عزني مده له وثناؤه فقد عليه نوره وجلاله